guy gi rëg rëg eh. ay waay waay waay waay li ngeen doon ay waay loo doon bañ mu xew wala mu yegg si bul ko appal bés waay ay bu ñu ne février xel mi dem ci guy gi ak rëg rëg ay waay làmb ja ñëw na nag guy gee ngi nii ci diggi géew bi rëg rëg ngi nii ci diggi géew bi arbitre bi guy gi arbitre bi di rëg rëg ndeysaan arbitre beeg leen seet ndeysaan arbitre baa ngi ñaari mbëri xool nañu Reug Reug ba pare Reug Reug ngay étiré ma ngay étiré guy gi am na lu ñu koy jox wala déet am na lu mu seex protège guy gi soxna protège-dent ndeysaan guy gi sax na protège dent ba guy gi rëg rëg ñaari mbër yaa ngi ci diggi géew bi guy gi rëg rëg ñu ngi ci diggi géew bi ñoom ñaari xale yi diggi géew bi actuellement arbitre bi xool nag rëg rëg ba nopp guy gi ba pare arbitre bi nga waaj a sifflé Ousseynou Diop waaw waaw ñu ñu ngi noonu ndeysaan ndeysaan jaaraama GFM entertainment jërëjëf groupe Futur Média ndeysaan lalla arbitre bi am na lu muy wax ñoom ñaari mbëri ku ci nekk daa bëgg a boot ci mikaayam guy gi daa bëgg a wan ci mikaayam ginnaaw rëg-rëg bëgg a wan ci mikaayam ginnaaw waaye arbitre bi ngi wax ak ñoom ñaar nee leen règlement bi lii la nangu règlement bi lii la bañ code sifflet moo leen boole waaye code sifflet boobu moo leen tàqale joxale leen loxo joxante leen loxo Gris Gris rëg arrière na waa guy gi arrière na guy gi daa fàttee jat wala déet guy gi dina jet wala du jet ah dañ leen xool nañ leen xool arbitre bi bu ko laajee guy gi jat guy gi jat na ma ngay reculer guy gi ma ngay reculer rëg-rëg ngi daw di ñëw guy gi def na sortie délibérée guy gi def na sortie guy gi def na sortie arrière na ma ngay léemu rëg-rëg nga koy xaar arrière na hey guy gi hey rëg guy gee ngay jàpp Adama fàttawu ko laay xamoon naa ko ndox du bàyyi yoonam ma ngay jàpp ma ngay jàpp ma ngay jàpp ma ngay jàpp ma ngay nangu na bi diw ko ci yaram bi continuer jàpp moom guy gi rëg doon na poftan hey nee bi jóg leen nee guy gi nee na jug leen eh lamb ja Reug Reug guy gi daa am loo wax tay ma yemale ko nee na tay ma yemale ko nee na ma guy gi am na lu mu seex am na lu mu seex moom guy gi waa déet waay guy gi lii mu def moom lan moo ko ci mën a fekk ah ndeysaan guy gi bàyyi na ba arbitre bi mu génn nekk ci ay débat débam lamb lépp tegtal la arbitre bi na ko pare nga guy gi nee na waaw combat bu nar a gaaw ngeen di gis mbokk yi ku xef gis jël bi nar naa gaaw avertissement guy gi sortie de libéré am na benn avertissement dèjà arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 20 février 2022 arène nationale journée GFM entertainment rëg-rëg ngeen jàkkaar lool guy gi moo lay wan ginnaaw rëg-rëg ikiti caaray géej guy gi ikiri suñu papa Mor Fadam yàlla na xoo yàlla yërëm ndaysaan ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi il est 19 heures 44 minutes ndaysaan maa ngi nuyu sama xarit ba maam Abdou Borom France xam naa ni gisuma la waaye sa xel mi yëpp a ngi fii ci làmb ji Borom Sene Pavage maa ngi lay bége bu baax ndaysaan sama xel dem na si sant yàlla mu baax mi sama xarit bi ndaysaan yàlla na sa jàmm yàgg sama xel dem na ci Serigne Mor moom sama xarit la yal na sa jàmm yàgg ndaysaan sama xel dem na ci la grand saltige caajaay Cheikh Bamba général ku baax la waaye mbëri ba tey ñoom ñaar ku ne maye na distance waaye sama xel dem na tey ci le grand cadreur le cadreur des cadreurs muy Adama lu mu cadrewul baaxul sama xarit bi ndaysaan nangoo liggéey am jom bokk ci réew mi lépp lu ngeen gis Wassare Lamb Adama la ndeysaan cadrage bu jaar yoon moom ci doy moom ak ay nawleem yi mu fa nekkal ndeysaan ma leen di bégee xel dem na ci États-Unis may bégee bu baax a baax le grand artiste Babou Presse sama xel a ngi ci ak soxnaam Dalian <laughs> ndeysaan di bégee famille bi sama xel dem na oh lamb ji mu ngi bëgg Reug Reug toog na ci tànk yi jox guy gi cër ku nekk taxaw na fi mu taxaw arbitre bi àtte na Reug Reug xool supporter yi guy gi taxaw na rek ndeysaan arbitre bi sifflé waat na Reug Reug sampaat na tànk bi taxaw moom Reug Reug guy gi taxaw rek guy gi neewoon na ma bàyyi jiili ma ne ko mu ne ma dinaa ko may deux su ñëwul aa ah. ma ne ko bu ñëwul mu ne ma aa ah. ma ñëw Reug Reug ñëwul lan moo nar a xew guy gi day dem wala loolu stratégie la wala dañ doon wax rek ñoom ñaar wala waxi signature contrat la ndeysaan sama xel dem ñër ci Zeus borom Brésil sama xarit bi yàlla na sa jàmm yàgg Séeri Fatick ndaysaan xale yaa ngi noonu ndaysaan ñu nga taxaw Reug Reug taxaw na rek guy gi nee na ko kaay Reug na taxaw na rek nanguwul sàqi paa ñëw ci guy gi guy gi nanguwul sàqi paa ñëw ci Reug Reug sama xel dem na ci Balla Gaye Bombardier nii la demee waaye combat bi waaw waaw arbitre bi day atte arbitre bi day atte ah ah ah ndànk ndànk ndànk ndànk na ko bëre leen waaye arbitre bi bu teelee joxe avertissement ndax guy gi am na avertissement bu njëkk sortie de libéré amaatee avertissement moom rëg rëg guy gi rëg rëg dox na ci koom léemu na guy gi ngi arrière rëg rëg ngi dox ci koom guy gi rëg rëg lan moo nar a xew rëg rëg doon na guy gi rëg rëg rëg rëg ci tànk yi la jëm wala déet guy gi rëg rëg guy gi day xeex wala déet jàppante nañ baaraam lu nar a xew ñu ngi jaayante doole guy gi door na guy gi door na guy gi rëg rëg Reug Reug door na mbaa door mu daanu du am mbaa du dañoo nar a xeex ñoom ñaari xale yi Reug Reug door na Reug Reug door na Reug Reug door guy gi jàpp na Reug Reug jàpp na Reug Reug jàpp na Reug Reug jàpp na sol na ko da koo nar a plaqué wala déet guy gee ngi génne loxo bi guy gi ngi door ci suuf guy gee ngi door Reug Reug caxabal na ko daan na ko Reug Reug daan na guy gi Reug Reug guy gi guy gi gaañu na ci zone wala déet gaañu na ci zone zone bi déplacé wu na Reug Reug daan na Gouye Gui eh Reug Reug daan na